papa laa tudd nuyu naa leen bu baax man papa laa tudd bu baax xaritu gabu laa woon sama xarit la ànd lu bari. Euh, yow ins bi nga xamante ni fi la yëf yow ak moom yéen a nekkoon wala yow fan la fekkoon. wax yàlla moom fekk fekk ma fi quoi. ndax nekk fekk ma lan moo war a rey bi problème la wala dañu discuter wala lu xew. non wax dëgg xaw ma nag lu war a rey bi quoi waaw. Ah, mais dégg naa njëkkoon nañ am problème si bañ a dese bi am na balaa ñaari jour si ginnaaw. Mhm. ki nga xamante ne moo ko faat. moom moo ko faat waaw déggoon naa loolu quoi mais après nag si guddi gi ñun daal lañ la gaa yi yëg affaire yi yëg ni gaa daal rey nañ kaw. Mhm. ma su ma la laajee ci gabu ana lan nga may wax ci moom ci ni mu meloon nag qualité mag yooyu. Mm-hmm. Gabou moom wax dëgg fa yàlla ku baax la ku yëg nit la tamit waaw suñu xarit la ñooy ànd chaque jour lu bari defandoo nañ ko waaw ku baax la yàgg nañ ànd dem màggali yàgg nañ ànd dem feneen a feneen mm-hmm. mais ñun nag géejawaay lañ nekk waa waaw géejawaay lañ xamante bu baax. di ànd chaque jour màggal yàgg nañ ànd màggal dem toog dal ba mu ne nañ dem kër si yaayam fu yaayam di jaayee si côté jumaa ja ñu dem ba foofu bu ñu demee yaayam defaral ñu xéewal ñu lekk ba suur delluwaat dal ba waa ku bëggoon yaayam la daal. tey rey bare loolu ci senegal tey boo amoon loo xamante dañ koy wax ndaw ñi ci wàllu nu dellu siwaat ci sunuy valeur ana lan nga leen wax. waaw lu ma leen wax moom mooy nit ku nekk moom da war a xam fi nga bokk xam fi nga si askan bi nga bokk rek boo xamee rek yenn yi amaana doo si dugg daal mhm. ndax nit Sénégal daal lu ñu war a def lañ lañ deful dañoo war a def lu nga xamante ni moom la Séria santaane ñu dox si waaw. lan la Séria santaane. Ah, Séria lum santaane ku rey ñu rey dañ la war a rey loolu lay Séria santaane mais Sénégal fii dëgg bi dañ koy laax laaxal. Mhm. non affaire bi métti na trop. affaire moom métti na ku si nekk da nga koy xool sa bopp quoi suñu rax la suñu xarit la quoi tamit ba nga xam du léegi depuis ba muy nekk booy ba âge ba léegi dëgg la tamit ndogal am na si tamit mais xaw na yéeme quoi xaw na métti tamit ku nekk tamit da ngay xool sa bop tey jii nii. yéeme mooy lan. mooy acte bi mu demee donte erreur la booy bi si jëm boom barki Seydina Muhammad ku dee sa bàmmeel yàlla bu ma yeewu suba moo toog après foofu sax mën naa loon sama portable def loolu par erreur la man tamit quoi benn instant peut-être sawat bu si mais tamit erreur. ndax depuis moom si kër gi lay fanaan kër googu moom moo toog wax ma ko ne moo sa waay jour mu gëjee sangu si sens yàgg na te mu xëyee sa waay moom mu yóbbu si ma sangu moo may jox ndékki ki nga xamante ni moo ko faat moo ko def barki alxuraan ku dégg sa bàmmeel mu si doom ñaar ay xarit lañu raxam moom la yaroo moo ko yar xam na ko ñun nuñ ko xam moom mu ñu ko gën a xam ndax bu mu koy xam xale la waaw moom moom ki ko faat moo ko yar ñun ñii ñëpp kii nii toog ak kii nii ñëpp xam na li ñuy wax moo ko yar ñu ñoo ko man mi sax maa ko mag kooku moom mag mais man mi man mi sax gaw maa ko mag suñu raq la amaana jëmm ji rek dafa teel a précoce mais xale la. kon bu ma la doon laaj ci ñoom ñaar li ñu jotee. exact lan nga ci dégg ci loo xamante ni moo tax yi fi am. waa man na exactement wax dëgg fa yàlla moom fekkee mënu ma ko jugé mais dégg naa par erreur la dama ko doon xeexal sa waay jël xaw ma lii bi xottu bu dee par erreur mu laal ko fii lañ expliqué xaw ma par la suite ci la affaire grave ñu yóbbu hôpital mu gaañu deret bu mu perte moo bëri quoi. waaw di ko ñaanal tamit yàlla yërëm ko xaru ko àjjana mais tamit xam na affaire xaw na louche quoi. louche bi mooy. waaw ah, louche bi mooy acte tamit ndax tamit qu'importe Serif suñu garant la suñu waay la tamit seexam tamit la même chose tamit suñu waay la comme maanaam bëre moo ñu fa andi ñëw pour supporter nu mu mën a demee xam nga compréhension waroon na mun a daw quoi yërmande mais tamit moom it tayu ko nag wax dëgg ndax moom toog na booy bi moom moo ma ko jugé si personnellement moom si gémmiñam ne ma saa moo may temps yëpp moo loon moo may ba si open press sax mercredi bi maa ngi moom kii ak Serif. waaw ak Kële. bu ñu expliqué moom muy waxtaan moom am leen vidéo sax da nga gis si net muy wax moom noonu di daw si si open press bi kon tamit erreur si la mais tamit xam nga waroon na ko mën a dawal ixsaan quoi yërmande. Hmm. tey nga dégg rey yu bëri yi ci Sénégal en tant que jeune boo amoon looy wax lan ngay wax ndaw ñi nga xamante ni ñu ngi ci ci Sénégal di def yu mel noonu nga xamante da ngay jot ak nit taf-taf nga daal di ko jam paaka wala nga cor ko jaasi wala yenn agression yi ah rey Pikine euh, Wakaam. Ah, non métti na moom metti na trop mais xam nga la ñu accordé ku ñu rey la muy man ak tamit la manière xam nga involontaire dafa am volonté am nit mu nga xeex moom dóor ko mu dee loxo wala nga def ko yenn mu dee wala nga juum def ko yenn mais ku rey jël ay harmonie rey nit dañ la war a rey nañu waxante dëgg dafa yomb. tamit xam nga nga rey nit ki nii tamit xam nga des fois da ngay gis ni ñu rey nit ki nii xam nga des fois ay lijjanti suuf fii moom xam ne lépp lu fi daw bàyyi la nga dem du yoon yow doomu jàmbur xam nga xam yaay moom la yaakaar xam nga rey ko noonu demee noonu dafa yomb de waaw dama ñoo tamit seytaane si la tamit nekkul damay défendre seri wala dara mais bii moom dafa xoo ànd ak seytaane quoi ndax moo ko yar su Moussa nag toog ñoom avant ñu tux sikaa bi bu ñu fi si bëri maan toog benn heure ah, dem foofu tëddi ñu xam ne lu may wax